đi chết đi chưa đâu gần đi người chơi đi. phi hoài luôn chỉ nhà của cô lời họ muốn đi chỉ đi gió cả Toujours dans votre scandale du jour de ce mardi 7 novembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai dama bëgg ñu seetaani une vidéo bi nga xamante ni di leaderu ex Pastef Ousmane Sonko gars yi ñu sur koy ci réseaux sociaux bi li ma ci jaaxal nag depuis un certain temps dañu gis gars yi ñi ñemee lool Ousmane Sonko dafa mel ni Ousmane Sonko bu mu nekkee ci biti ñu de ànduñu woon ak moom maanaam dañu ragaloon ñi leen di saaga wala ñi leen di xas wala ragaloon seen vie nekk en danger moo taxoon ñu ñëwoon ak pat mais jamono ji dafa mel ni ñoom ñëpp a génn nañ déglu ci vidéo bi dellu siwaat dafa jot sëkk nag jot na sëkk nag état bu Sénégal jël ay responsabilités yu mat sëkk sëkk sëkk sëkk nag comme na ko jële woon bam naan taral usu bool di yolam géñoo tas roof ko ci bi vitesse mu rythme ñu état du ay da ko di ko dëggal yox yoxe geeg yoon njax jeeg dof dof lu gaa commencé Ousmane Sonko mënu fee raylu ñeen fukki nit ci Mali foro rayluwaat fi ay nit xale yi dem dóor ay cocktail molotov ci ay biis nit ñi lakk ba kenn du leen mën a xàmmee taal fi université bi BRT TER bi yàq fi ay alalu jàmbur ay centaine de milliards yàq fi état saaga fi justice bi saaga police jiiñ police ak gendarmerie tentative d' assassinat empoisonné ni ñoo ko bëggoon a def saaga nit ñi ni damay déloger Macky woote ci réew mi ingouvernable yooyu yëpp daje tuumaal fi maam Mbaye Niang ñu atte ko corruption de la jeunesse mooy di yàkkataan jigéen ci lu ko neexul te amagul ñaar fukki at benn di ko nax ak di ko ger war a jàkkaarloog Népal moomu tuumaaloo ni lu xew ci bureau Maham Diallo moo ma koy wax tooxi doona gi nit def ko ci réew ba pare ñaan si si bee am na attekat bu nekk fee nee na dañ ko war a roofaat dañ ko war a roppi ci moom la ñu war ne attekat yëpp ñu wax ak ñoom nag ndax ñoom ab buñ sañee atte état dafee am attekat bu solee bulusam solub robbam sañ a toog di dóorub affaire naan kase naa ko kase wuma ko daa fekk armée ne fi militaire ne fi police ne fi état ne fi bu fi état newul fa ñuy attee lañ leen di fekk muusi ba am justice yi ñuy wax yëpp dafa fekk état dëgër ba pare képp nag ki naroon a nërmeel état nga xam ne tey Ousmane ko ci norme des ko woon a dóor bal nañu dóore woon bal kaddu doon tëkku Joe Biden fan yee ca gannaaw tey kenn nit kese c'est que moom la FBI yi sañ a dóor bal ci réew mel na Amérique nga xam ne mooy bàyyi démocratie fi mu toll ci réew mi ci àdduna rawatina ku mel ne Ousmane ci biir Sénégal mu yor nit ñu bare lool te gëm ko wax wax ju mel noonu ni damay rey Macky Sall te buñ koy rey nañ ko def comme Samuel Doe waratul a dund ci mim réew. waratuñoo may droit kenn nga ko ndax am na loo xam ne jékkul jaaduwul yellul rafetul réewum Sénégal fi mu toll Ousmane Sonko li ñu ko may dadul yëpp ay turam beneen ba ca des mooy dara jotu ko feebarul ab sëriñ bu mag taxaw na fi ni feebarul bu ko waay yeewi askan wi daan seeti day jéem a kiris kiris lu baa muy nekk dans le coma Baara Ndiaye ci boppam dëggalaat na ni bi ñu nekkee réamination dañ daan toog di sappe ay télé yor sunu commande waaye duñu seetaan yu Sénégal moom état bi nag di ñàkk ci moom chaque jour deux cent mille mu tëdd feecalal hôpital ngir lan nee na dara jotu ko waaye day day xiifal xiifal amul ci hôpital xiif moom lenn rek a koy faj lekk comme nanguwul a lekk te am na lu mu lekk moo lank ba ndaaru loolu nag état bi da ko war a wàcc foofu nag mais waruñu koy jagat-jagate wala kon boog ñi grève defee yëpp nañ nañ leen andi ci hôpital yi di jour deux cent mille weesur yu Ousmane Sonko def ci hôpital bi rek coûté na nguuru Sénégal 4 million ba pare yàq suñuy milliards mais loolu mataxa yeba kañ état bi il faut mu jëg na ka ba génn na Omar Youm génn njiitu réew mi génn ministre de justice génn attekat yi ñu jël tur Ousmane Sonko ñu évancé ko atte ko ci lépp dóor ko perpète baa ñu sàkkal ko pexe lii mënta wéy réew ñëpp dañ dañ cey bokk yem li Ousmane Sonko def histoire musta gis nit ku ko def ci àdduna lakk université moom bu piir dong lañ ca xamoon jamono colonial yu jëkk-jëkk ya ñaareel ba doomu Sénégal a ko def di Ousmane Sonko ay cocktail molotov di sànni bomb ci ay bis te terroriste la des ko war wàccee voilà kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo bi ginnaw waji bu mu né état du Sénégal dafa jot sëkk ñu jël sen ay matu way ginnaw nañ ko jëlee won ginnaw bi nga xamanteni barricade nañu buntu kër Ousmane Sonko bi fi semé won le désordre semé fait appel à l'insurrection semé fait trouble à l'ordre public saccagé ay biens de l'État saccagé ay biens détruits manam 40 personnes ñak fi sen bakkan moy ay mort yo xamanteni ba tay ji ñi ngi teud suuf seddagul sen kaw ndax ndaxte ba légui kenn identifié gul ñi nga xamanteni moy responsable que état du Sénégal jëlaat ay responsabilités bay Ousmane Sonko ko fu mu nekk ba nga xamante ni ñi nga xamante ni ñi ngi bëgg a tàmbaliwaat yeneen ñaaw teef ñu am fu baax a baax fu ñu leen teg dama bëgg ñu déglu ñu beneen vidéo nga xamante ne di Samba Boy yi nga xamante ñu ngi topp ci ginnaaw Ousmane Sonko xamuñu lu dul taal xamuñu lu dul affaire u rebelle xamuñu lu dul yëfu yàq xamuñu lu dul sàcc ak banditisme yan kàddu lañ yëkkati jëlee fi demoon ci gaal taxaw képp koo xam ne bandi nga génn képp koo xam ne sàcc jóguñ fa pour supporter waaye dañuy jóg pour tasaare dëkk bi man loolu laay woote parce que ful nga am ok. kon yaakaar naa ni ñii di défendre Ousmane Sonko yaakaar naa ni suñu dégloo vidéo bi gàcce war na leen jàpp kii mi ngi taxawoon doon woote appel à l'insurrection woo na képp koo xamante ne sàcc nga képp koo xamante ni bandi nga képp koo xamante ne da nga amoon lu la naqari képp koo xamoon ni da nga tukki. manam xam Barça wala barça wala Nicaragua ni delloosi la na ngeen jóg fépp ñu jaxase dekk bi tal dekk bi yàq dekk bi y a ko déggandoo wax ndax lan patriote la ndax lan ci Ousmane Sonko la bok kon yakarna ni défendre Ousmane Sonko sur les plateaux en commençant par ñen ñuy qui sen bop juriste gatché lepp li nga juridiction juriste ñi nga ñoy ay chroniqueurs ils sont payés uniquement pour mentir ñi nga xamante ne mooy ñenn ci ay journalistes yoo xamante ni jaay nañu seen am jaay seen ngor jaay seen dignité ngir yaakaar ak wéccat di défendre kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko lépp lu mu def ba ci ay ñooñam ba ci lu mu jàngal ay nitam ñu sëgg ko jël état bi dinaan def ko bundu xatal yaakaar naa ne xanaa lii déggu leen ko xanaa lii déggu leen ko. kii nan la woo bandi sàcc nañu taal dëkk bi nañ jaxase dëkk bi nañ yàq dëkk bi carrément ñoom nee na ay patriote lañu est-ce que ñooñu jàngi nañu lan mooy définition patriote patriote mooy ki bëgg sa réew mooy kii sàmm àq ak yelleef sa digganteeg doomu aadama bi nga bokk réew mooy kii sàmm alalu réewam mooy kii sàmm alalu jaamur xam ne lépp ñoom ñoo ko bokk kooku mooy patriote koo nga xamante ni mooy xool naka lay def réewam naka lay tabaxee réewam naka lay xoolee développement réewam kooku mooy patriote kii lii la woote yéen a ko déggal seen bopp société civile ngan la waay yeewu leen ngeen bàyyi partisan bi wala ngeen simmi mbubbu société civile bi ngeen dem far ci parti bandi yi far ci parti sàcc yi far ci parti ñi nga xamante ne appel à l'insurrection la ñuy woote suba ngoon far ci parti ñi nga xamante ne ay rebelle lañu far ne ay terroriste lañu de croire ngeen wàcc Sénégalais yi wàcc micro yi wàcc plateau yi ngeen rus seen i njaboot rus seen i jabar rus seeni i parents parce que yéen nga leen di gàcceel guddee ngoon suba ci plateau bu ngeen toog seen jabar dafa am nawle fu mu génnee ñu ne ko sa jëkkër yu mu doon fen seen doom école bi ñu jàngee ñu sa papa moo mën a meew ngalawaay bu leen ko alalu àdduna jaral fonk leen Sénégal te xam ne yàlla li mu ñu wàcceel Sénégal ki mu tudd moo fiy nekk dongo fiy nekk nit ki nag mënul récolter dara loo xamante ni jiwu ko li seen militant seen leader jiw démb moom la góob te bi mu koy jiw su doon ay nit yu baax ngeen di ngeen ko woo mettre ko à la raison mais kenn ci yéen woowu ko kon donc vous êtes complice donc je crois que mbaamu àll bi lii la woote moom moom mi làqatu nag ci caméraam yor làmmiñam di wax lu ko teree wàccee ci tali bi jaxase dëkk bi lu ko teree wàccee ci dëkk bi jël xeer policier bu mu jàkkaar loolu mu taal ko su ñu demee bay wax nañu taal ay nit kon su ñu taalee nit fële ca Kaolack fekk néew bu dee ba pare ñu taal ko ndagam ñi nit kuy dund lañ mën a jàkkaar lool taal waxutuma laak nag taal néew koo xamante dafa dee ba noppi ay xale yu ndaw taxaw joteew ñu dara benn institution muy chef suprême de l'armée di président de la république tey jii may wax ak yéen mi ngi foofu jal Diop di journée de l'armée maanaam di présider cérémonie boobu di war a teg germe de fleur ñi nga xamante ni seen mémoire ñi nga xamante ni dañu combattre ngir seen ba yàlla jël seen bakkan ñooñu taxaw foofu di naan ay suñu jàppee euh, instruction bi nii lañ koy taalee parce que ci yéen lañ ko déggee nee naa la bouteille ba la mu def moom la saañ ba de xeeñ seen mentor di seen leader Ousmane Sonko la nekk ci biir bouteille am yéen doomam yi seen saañ loolu kese lay xeeñ kon yaakaar naa dafa am benn violence boo xamante ni dafa verbal balaa muy doon physique. kon tey ñii ñaawul loolu je crois que ñi ngi ko gisee ci kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko di leaderu Pastef kon yéen a ko déggandoo seen bopp bandi yi la woo sàcc yi ak saay-saay yi waaye nag kañ ku ci demoon Nicaragua wala nga dem euh, Barsax ñi delloo si la nga jël sa mer bëgg ko wekk euh, ci mbedd bi je crois que yow rek yaay perte mu doonoon vidéo bi nga xamante ni ci scandale du jour de ce mardi 7 novembre yoon di nga jël di fii waay mën ci ñaar ma góole xaw ma nu ci di doon yaay